libéral. ci ndaje bu mag bi ñu doon amal ci diwaanu Kaolack kuréel gi di assise ëmb commerçant industriel Sénégal yëngu-yëngu yi am ci biir réew mi diggante 2021 ak léegi jaaxal na leen lool commerçant yi jàpp ne ñoo ëpp li ñu perte ci yëngu-yëngu réew mi. depuis 2021 ba léegi ñu day am bis yoo xam da ngay tëj doo mën a liggéey ñoo xam ne dañuy jëm liggéey wàcc ñu jàpp leen ay commerçant moo tax daal ñu demoon li li mu yem fii ñu gi di assise di ñaawlu tam doxalinu Dubaï pour tëdd ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ne lu muy ronxee xaalisu commerçant yi ci port autonome bu Dakar jaaduwul ak nañu dañ naan ñu douane mais ñu gën a sonal na ne ay étranger gaa jël xaalis du ko yóbbu beneen taxe yi des du jaar yoon loolu état moo ci war a fay woo nguur gi ci lu gaaw ñu amal ay solution ci lakkub marché yi nga xam ne lim leen di teg ci jafe-jafe ak i pertement jéggi na dayoo ñun dem nañ ba asin am na ay ànd première ci biir war na mën a gagné marché tabax marché bi ci moyen de un an wala mu delloo ko seeni i borom te du am coow maayituñ benn yoon état muy jël ay marché di ko jox promoteur boo xam ne amul réalité yu ñuy dund xamul naka la ñuy doxee ñoom commerçant yi ñu jàpp ne nguur gi war naa leeral ci nu mu gën a gaawee boom bi ñu boom ndaw bi di Fallou Gueye ci manifestation yi weesu waaye tam amal élection chambre consulaire yi boobu nga xam ne géej na am ci atum 2009